daañu def suñu kéemtalaay kàttan ngir Sénégal bokk ci académie bi nga xam ne moo ñeel Afrique sow jant boobu la déclaration Thierno Alassane Sall mi nga xam ne kat moom nee na samp na ndëndëm ci li nga xam ne mooy euh, élection présidentielle bi di ñëw moom la daal di def ki nga xam mooy njiitu euh, parti bi di République des valeur réew Ngor nekkoon fi jëruñ jënk wàllum énergie moom nee na daal lii nga xam ne kat mooy candidature am dëggal na ko ba tey ci déclaration bi nga xam jot na koo fësal moom ne daal la mu bëgg rek mooy askanu Sénégal amat espoir ak tamit wàllum yoon ñu mën ko fee tëral te mu gën a baax waaye tam tolloole gi loolu dee wér ba faw moom Thierno Alassane Sall nee na daal foog ñu xalaataat waaye tamit daal di tëggaat beneen xeetu éducation loo xam ne kat day jàngale ci li nga xam mooy école yi ak ci daara yi waaye lépp daal mel méngoog jamono. ne daal engagé wu na ngir mën a kat fësal potentiel bi nga xam ne daal ma ngay nelaw ci doomu réew ku ne ba tax na ne daal ma ngay gën feddali waatu ko la ci li nga xam ne kat mooy potentiel ba ñu am jaarale ko tamit ci Afrique sowu jant ñu gis ne leen loo xam ne kat dikkaat na ci mooy xeex wàllu mburuca ak li nga xam mooy injustice sociale ak li nga xam ne tamit mooy ñàkk a tollole maanaam moomelu askan wi moom leaderu parti bi di République des valeurs ne daal la ñu war def rek mooy wàllum corruption ndax gis te ne day nasaxal am réew ba tey fas yéene kat dagaanu baat askan wi waaye loole mi ngi ko bëgg daal di jaarale ci yaa doxalinam ak benn gis-gis loole kat mën koo daal di jaarale ci programme di vision 2024